ginnaaw bu ñëw tàggoo yàlla julli ci yonent bi ñoo ngi santati Serigne Touba di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah di nuyu mbokki jullit yi di leen ziar di leen baalu àq di leen baal di leen ñaanal jàmm tey sàkku ñu ñaanal ñu ko waaw Souleymane nag wax dëgg yàlla sunu rakk la yàlla xam yàlla def na ni musuma koo ñëwal na xëy na mës ta xewle kon bu xewlee lu mel nii suñu borom dogal ñu am natt ci yu mel nii dañuy bàyyi li ñuy def lépp teewal parce que bien vrai que ni ku ñu xam ci ci ci ci yëfi àdduna nga nu xamee waaye lii mu ñu woo ni dafa di la nga xamante ni dañ koy dund lu ñu bëgg la te lu ñuy dund wax dëgg yàlla waaw. tey ñu da nga daal di ñëw ci bés bi comme ni nga ko waxee sànq a xam moom ngeen di dund euh, yàlla def nga nekk def sa métier ci koor gi nag ak li ngeen def bokkul ba tax nañu gis absence bi ngeen toog mais malgré tout ça ci yan xam moom ngeen di yëngu nañ lañ cee gis te question bi comprendre moo euh, comme par exemple instant bi li nga xam ne moom ngeen nekk di liggéey maanaam ci di ko yëngu nekkul loo xam ne dafa coïncider ak ci nga xam mooy weeru koor bi ba tax na da ngeen ko laf daal toog seen coin showbiz bi daal maanaam yëngu-yëngu beeg ak ni ngeen toogee noonu ci weeru koor bi teewul yaa ngi gis yi nga xam ne moom la ci gars yi dundal ku ci mel ni sa patron fan yi sotti bi nga xam ni def na ko ak way bi nga xam ni daw na yaram torop bi nga ko déggee lan la la def non non man bu ma sayoon nag wax dëgg yàlla ñu wax ci ci diine gi fu mu toll nii quoi comme ay verre showbiz moom mën nañ ko pause ba mu reprendre rek ci koor lañ ne Wally yàlla na ko yàlla defal jàmm ah c'est une personne que j'aime que je respecte aussi mais là là en ce moment là du du heure showbiz du heure wax wax yi àddina wax ci yu baax yi nii gars yi def moo. mais Arma moom euh, fi mu bëgg a waxee mooy par exemple Wally dund na ay difficulté ñàkk papa ñàkk yaay ñàkk mag à un moment donné ñëpp ne Wally day bàyyi woy mu ànd ak courage ñëw andi son boo xamante dafay yee àdduna dafay yee ci nit nga xam ne day dund nga waxal ko lu baax. Wally yàlla la Wally jaamu yàlla la. li fi jëlee yaayam ak papam ak magam. bu doon nit la mu taxaw jaay ko bakkanam mais suñu borom moo ko dogal gis nga kër goo xam ne dinañ xëy ñëpp deewandoo te kenn du contesté parce que dogal suñu borom la moom jaam la te ko nangu dogal la waaw dañuy ñaan rek suñu borom gën a tax dëgëral taxawaayam yokk ko xolu muñ te ñu bàyyi waxi soo bis te wax waxi waxi waxi wax yi tey ku wax Arma ne Wally mm-hmm. ku wax Arma xel yëpp day dem ci sa soxna parce jigéen bu mu góor la muy dabaay mm-hmm. mais démb dañ la gis ci cant Awa yaay comme li nga wax sa période nekk am mu di showru Ramadan ku xam xaar Arma xam Arma si social dañ lay gis nga koy œuvre mais aussi tamit ngay dund Serigne Bamba ku la jege xam ne ne Arma day dund Serigne Bamba ndax démb li nga yëngalee cant yi ëpp na waaw sëñ rek moo fi ne moom rek a jar a dund fii moom loo fi dund sëñ Tuubaa rek da ngay waaw wax dëgg yàlla ko nag pour vexer kenn na ku ci ne fa nga jàpp waxuma daa bon ku ne fa nga jàpp baax na man ki ma jàpp muy sëñ bi jàpp naa ni moo gën lépp wax dëgg yàlla boo tax na ni bu ñuy buñ ñu ci wooyee dañ ciy sawar lool loolu gënal foofu. ah mais kon. déet nañ wax la leen rek déet bàyyi loolu. da nga koy dund ba waaw waaw waaw déet laajal leneen yow it nag. la la defaral. yéen waaw yéen tamit xam nga waaw waaw bisimilah waaw nag amaana moom moo tax ki nga xam ne mooy Arma mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi eh, mi ngi xaw a jooy wala sax tuur xéewal ndax dañ ko laaj ci ki nga xamante ne moo di Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul moom Arma Ndiaye gis ngeen mu tax jug na dem ah, bi ñu ko laaj lan la ko Serigne Touba defal doon na anecdote boo xamante ne amaana munu ko wax ba tax ne Arma Ndiaye nii la demee li nga xam ne mooy interview bi. baalu ak sénégalais gën baaluwaat di wax jërëjëf sëñ bi wax wax jërëjëf sëñ bi wax wax jërëjëf sëñ bi wax di wax jërëjëf sëñ Saliou Sama Yaakaar jërëjëf sëñ Saliou Sama Yaakaar jërëjëf sëñ Saliou sant samay samay mbokk bi rek samay mbokk bi ñi nga xam ne ñoom ñoo yàlla dañu fekk wax ñu wax rek gànnaaram suñu dimbalee ci lépp loo gis beneen bopp waaye mën na am lu bopp bi gars yi di gis ni sama jëm taxul sax li am samay ganaar yi may gis ma xam ci moom la ñu ñooy tax ñu mun nit ki nekk ni nga mel danga ko fekk sama dëkk nit doo àddu bi ñu sama dëkk yi yaa daa teg sama xel may sant yàlla di laaj gis gi amaat foofu yëpp ñu ko war a fekk fekk di ñaanal yàlla ñi nga xam ne ñu sonn daal te fekkee ñu ko yàlla xare leen aljana wax dëgg yàlla teral ñu ko sàmm leen jàppale leen te ñu koy def ak yu bare bare te kenn dama mën na ko te yomb na ko yàlla ko def ci ñu di kontaan seen teewaay dëgg la nga adduna moom dañuy wax ni ñun ñu nga les les étoiles tàngaay yàlla du boo wootee nit ñi si la kon pour loolu da gën a ñàkk responsabilité rek parce que jot amul te ay kilifa joxe mooy ñu doon wax ak yow ay kilifa la amul jot am na luñ koy yëg parce que ay kilifa dëgg la man nañ la ma yàlla boole loolu mooy sama doole te nit ñi bu ci ñoom la du ci man seen baax la te am ndimbalu sëriñ dogal suñu borom sant yàlla bu baax a baax yoon bi sama dara nag li sama kàttan bi sama mën na yàlla mooy xool jàmm bu def ci ñoom la ko nekk ñu xamuñ sax lu ñu def xamuñ sax suñu def yàlla moo ñu teg ci yoon rek ñu nekk te nit ñi bu ñëwee dooleel ñu kàttanal ñu dañ ci def dañuy sant yàlla te duñ ko delloo à tout moment ñu lay def seen taal li nga jot sa dal dina am lan la la seen taal dafa question bi day ñëwaat saa su ne sama koor yëpp wax naa ko te di fois du ma du ma du ma du ci waxaat may damay waaw mooy sëriñ bi rek xam